salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di siyaar bu baax si nekk ma dara jox sa wàccuwaay gis neen poste yi nga xamante ne euh, Pape Alé Niang mu ngi ko doon def depuis si bëccëg ba ñoo wax na sax dañ ko arrêté <laughs> yooyu yëpp bu nekk ay ay ay mbir yoo xamante ne foo information yoo xamante ne waa ñàkk jàmm ñoo koy génne li ma gën a yéem nag mooy lan moo tax ñuy confisquer ay moo xam téléphone am ak. Euh, matériel yi daal yi nga xamante ne da soxla si liggéeyukaayam man manuma comprendre loolu pourquoi confisquer loolu loolu rek la mu bëgg a xam pourquoi ñu ne dañuy confisquer loolu te pourtant il est journaliste ba pare nag la def liggéeyam si biir postame yi ñu ngi lii fenn foo xamante ne mu ngi mu ngi def le tout ba respecter lépp laa xamante ne euh, euh, euh, la jëm si wàllu li moo yëngatu di journalisme bañ maanaam comprendre ngeen texte bi dugg fenn fi daal loolu yëpp mun ngi kaa bàyyi xel bu dul dara en tant que journaliste xoola journaliste yi fi nekk la leen neex ñu yàq Ousmane Sonko la leen neex ñu wax Ousmane Sonko la bon waaw te kenn du leen woo waa Pape Alé am na droit gouvernement bi ba nekkul si dëgg mu wax ka te tàmbaliw ko tey fàttaliku leen 2011 fàttaliku leen li ngeen bëgg nag yore Sénégal du dem impossible loolu jeex na wallaay loolu jeex na mhm, loolu jeex na fini te six mois moo leen desee li ma leen koy yàgg wax ngir yàlla fexe leen ba génne fi ak la rafet ndaxte ni ngeen nekkee ci réew mi histoire Sénégal dina ko bind te bu soobee suñu boroom te ji nag mën na bëri maa ngi dégg ay mille xaw ma huit cent cinq mille sax bu ngeen tëjoon lu toll cinq mille wallaay du tey ngeen daanu te si suuf ngeen jëm barke alquran ndigal li jub na ba pare de mu ngi si kaw si suuf ngeen jëm da ngeen di dem da di dem waaw da ngeen di dem xam leen loolu kon asaanama bi yëpp jaru ko ndax nit ki nekkee